dal leen ak jàmm coowal politique ak kàddu yu Ablaye Wade yëkkati jëmale ci gouvernement bu bees bi émigration clandestine di mbëkk mi gone yi jël gaal yi ngir jubali bitim réew loolu mooy ponk yi gën a fës ci lu yéenekaay yi xëy tey gouvernement bi ñu jàpp def ko ni marchandise di ko waxaale loolu la Abdoulaye Wade yëkkati ni ay kàddu Wade crache le sur Macky et ses néo alliés mooy Abdoulaye Wade safara la yàbbil ki nga xam ne moo di Macky Sall ak ñi ànd ak moom loolu la yéenekaay bi di Les Échos xamle ci biir journal bi Abdoulaye Wade tukkee te dara lalu ko lu dul intérêt personnel maanaam loo xam ne kenn rek wala ñaari nit lay jëriñ moom maître Wade mu ci yokku ne dialogue politique national bi ñu fa amaloon mooy waxtaan yi ñu sungoon ci wàllum politique ay naxee mënu koo gën a rëy loolu sabab suñu naataangoo yi di wax ne Wade front bu mag la bëgg a créer ngir jàkkaarloo ki nga xam ne moo di Macky Sall la tribune moom di wax ne Abdoulaye Wade ab wootee la amal jëmale ci ñi nga xam ne ñoo Sall jiboo gi diggante Idrissa Seck ak Macky Sall Abdoulaye Wade da koo xarab suñu sukkandikoo ci L'As Quotidien ci journal bi Oumar Sarr mi nga xamante ne moom moo jiite woon frondeur yi ci parti démocratique sénégalais jamono ji ñu def ko ministre des mines et de la géologie di wax ku ko bëgg a dégg ne moom dina woy di xeex ngir parti politique yi gën a bëri ci nguur gi Walf Quotidien moom ci pomi ci politique bi la xëy di wax ne baatu askan yu ñuy wëlbati di ko moom di xam ne ne ay milliards yu bëri lañ jël dugal ko ngir xeex mbëkk mi waaye résultat à coups de milliards résultat insignifiant loolu la journal bii di Sud Quotidien bind ngir xeex mbëkk mi gone yi jël gaale di dem bitim réew Mignane Diouf mi coordonnateur bu forum civil moom di wax ne mbir mi warut yem rek ci ay kàddu dafa war a ànd ak ay jëf te ñu jéem a fexe ni ñu woyofale dem beeg dikk bi jël mbir mi dénk ko police rek muy wattoo ko artu loolu du solution bu mën a yàgg ci fan yu néew lu ëpp ñeenti téeméeri gune ñàkk nañu seeni bakkan ci ndox mi tax ñi ci bi ne ñoom dañuy jël bésub lumb leen bu ñu ci yéenekaay bii di Les Échos jamono jooju la tribune wax ci talaata gu métti gi ñu yendoo horrible loolu la journal bi bind tribune di ñu wax ne ñaari gone le poto courant masse ñu ñàkk seen bakkan ca xaar yàlla ñetteel bi am ay gaañu-gaañu ca Soumbédioune moom géej géey goxi ab nit koo xam ne dafa faatu ba tàmbale woon yàqu ñetti nit ñàkk nañu seen bakkan ca Podor bokkoon na ci benn vétérinaire ca Jurbel moom géej géey goxi moom it beneen nit bu ñàkk bakkanam foofu poto courant bi ak ñaari gone yu mu yóbbu seen bakkan loolee it la ñu a jàng ci jël na dogal yokk l'armée bi bu baax doole ci wàllu matériel les nouvelles ambitions de Macky Sall pour les armées suñu naataangoo yi di ci yokk ne njiitu réew mi jaajëfal na l'armée bi ak seen taxawaay te dana yokk di leen taxawu rawatina gendarmerie ngir ñu gën a a wattu kaaraange gi ci jaww ji ci jéeri ji ba ci ndox mi bant yi ak nañu koy goree di ko sàccee ci réew mi rawatina ci bët saalum gi journal L'As di ñu xamal ne démb kilifa yi taxaw nañ taxawaayam ñu ñu war a jaajëfal lañu ñu ñu war a sargal lañu càccum bant gi moom jiitu réew mi nee na nañ ci taxaw ba dakkal ko te mu ngi ciy woo ñëpp vox populi moom di wax ne Macky Sall yokku na doole armée bi enquête moom di wax ne Macky Sall amal nay dige jëmale ci armée bi ak gendarmerie ñu yendoog jàmm